mu yàgg fi te wér di dalal président Macky Sall mi nga xam ne mooy président de la République de Sénégal ànd ak membre de gouvernement bi mu àndal yépp fii ñëw fekk ñu fii ci Touba tey ci bis bu tedd bu màgg bi di 18 safar bi nga xam ne moo ko indi bi ñëwee ñu ànd ak njabootu Serigne Touba gi yépp teeru ko ànd ak Serigne Mountakha mu ñëw fii te iniguré ubbi dagg ribaam bi bàyyi fi Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadir ak mboolem njabootu Serigne Touba gi nga xam ne ñoom la bokkat Serigne Touba li tàmbalee ci kër Serigne Modou Moustapha ba ci kër Serigne Mourtada ci seex yi ci Baye Fall yi ci bokk yi ñépp tey ñu ngi ànd ak taalibe yi monsieur le président de la république ànd ak conseil municipal bi ak bureau municipal bi di la dalal jàmm fii ci dëkk bi waaye di la defal li ëpp solo ci wax ji mooy nit ku jëf-jëf joo xam ne gisaguñu ku ko jëf ci taarix gisaguñu ku ko jëf ci réew mi loolu moo mbégte yi gannaaw boo doxee tànk yiw yi nga xam ne yàgg nga ko dox nga def ko ci dëkk bii loolu moo tax tey mboolem jigéen ñi nga xam ne ñooy toog nii di jigéen ñi nga xam ne ñoo dëkk ci région de Diourbel dëkk département Mbacké dëkk Touba ak mbooleem jeune jeune yi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi ci commune de Touba ak mbooleem bokki taalibe Serigne Touba yi tey ñëpp monsieur le président de la république ñoo ñi nga jàkkaaroon nii ñu di la am yow ci yow yéene am ci yow cofeel am ci yow ak jàpp ngir jëf ji leen defal ndax président de la république sa jëf dafa ëpp say wax lu ñu bare bare bari seereel nañ la ko te sama jàmbaari lislaam ja daf maa waxoon ne as gorde boo ko teralee boppam la lay faye murit yi nag teral nga leen ñoom de munuñ leen a munuñ laa fayee seen bopp ndax jox nañ seen bopp sañ tuwaate dootuñ ko nangu waaye danañ la teral am nañ yéene ci teral la teraanga joo xam ne danga xam ne mosuñu koo teral kenn ci li ci seen kanam Serigne Abdou Lahad Mbacké def ne nit boo ko defalee lu ñëpp gis dana la sant ba ñëpp déggu ko te sa jëf ji def nga jëf joo xam ne waxuma Sénégal waxuma communauté mouride waaye Afrique dans le monde entier ñëpp gis nañu ko Ila Touba bi rek ci sa benn mandat dafa doyoon teranga nga def ko in teg pose première pierre bi inauguré ko ci ñetti at ñu defe ne jëf dootu mënatul leneen am lu toll noonu nga jóge fi waxuma hôpital bii ñu nekk hôpital Matlaboul Fawzayni bii biñ ne am na jafe-jafe nga dégager six milliards cinq cent def fi benn immeuble boo xam ne yaakaar naa ne Covid 19 bii tey bu doggul loon ak immeuble boobu ci Touba ak li ko wër dana bari jafe-jafe waaye li mbooloo mi doon bari bari évacuation yi nekk ci suñ région yépp ñëw nañ fi ñu accueillir leen yàlla dogal faj leen ah, docteur ministère de la santé ak personnel am liggéey ci liggéey boo xam ne du luñ mën a xayma xanaa da ngay xool statut yi ak li ñu bind ak ni op mat malade yi toll ak li ñu traité loolu rek moo la ko mën a wax waaye bu dul loolu xam ko dana jafe nga jóge ci loolu ñëw ci assainissement eau usée bii nga xam ne ñaari at ñu ngi fi projet bi pare na ak quatre-vingt-dix pour cent def ci dix-sept milliards muy dem ci quartier yu bëree bëri jël Daaru Xudoos jël Gede jël Surra jël lenn ci guy mbind ñu yóbbu ko Mbàkke muy jëf ju mat sëkk jëf nga jóge fi bëri ki démb nga teg fii poste premier père benn centrale électrique boo xam ne soixante-dix milliards de francs CFA la nga teg ko ñu fas yéene koo liggéeyal Touba ngir jafe-jafe électricité mën a jeex ci ndëkk bi yemoo ci loolu nga jóge Promoville bi gis nañ ko muy cor corniche bi gis nga tali bi nga xam ne torsion de douze kilomètres la nga def ci treize milliards tey mi ngi pare na quatre-vingt pour cent yaakaar naa ne loolu ku ko def jàll bi ku démb yabel fi sa ministère de l'intérieur bi nga xam ne ne ndox moo xam ne musul wàcc Sénégal depuis ñaar fukki at yi ak juróom wàcc na Touba de cent quarante millimètres nga yebal ko mu ñëw fii ànd ak service yëpp ak ministre yi ñëw ñu def benn projet boo xam ne vingt-sept milliards la quatre milliards yi tàmbali nañ ko liggéey bi démarré na mi ngi ci soixante-dix pour cent ngir ka jafe-jafe yi nga xam ne moom moo moo nekkoon Kër Ñang ak ndaamaatu dootu fi am ba àddinatu kii loolu rek dafa doy liggéey sëkk waxuma la nga jàll bi ko nag def fi lii nga xam ne kenn am na musu koo gis ci sous région bi amagul Afrique am boo boo appareil yi fi nekk daaf wax na ko léegi ñaar fukki service ak benn ñoo fi nekk yoo xam ne nii benn bu ci nekk dafay faj nit ki ci jàngoro yi ko dal loolu benn hôpital niveau 3 boo xam ne mi ngi ci 300 lits yaakaar naa ne ci dernière génération nga def ko R plus 1 ci quatre hôpital yi nga xam ne moom nga inauguré ren te liggéey ko ci réew mi 1960 ba Sénégal amee indépendance ba léegi musuma gis menn at ci àddina mu ñu mu ñaari hôpital waxuma laa di ñeenti hôpital waxuma benn niveau 3 boo xam ne niveau niveau boo xam ne mille trois feebar bu nit feebar ci àdduna bu la yàlla soxlawul bu fekkee ne buy wér la boo fi duggee da nga wér seen daal matériel bi nga fi indi muy équipement di dernière sénération boo xam ne képp ku ko xool loo xamante xamante dara da nga xam ne bii ku ak jii jëf ku am yéenee ko jëf ku bëgg fi muy jëf la waaye ku bëgg Serigne Mountakha nga nem comme ni mu la bëggee Serigne Mountakha nag yàlla na yàlla guddal falam te wéral cëram ku la bëgg la ndax dangaa ñëw fii mu ne la sëriñ président sëriñ Touba laa lay boole yaakaar naa ne ku sëriñ sëriñ Muntaxa xalifa général de Mouride boole ak sëriñ Touba defe naa ne kere bi mu ko waxee li nga bëggoon lépp am nga ko ndax ku li sëriñ moom képp ku ko liggéeyal danga ko gis képp ku ko liggéeyal li uh, Ablaye wax léegi boo tëddee booyee boo nga nelaw te te nag monsieur le président de la république asgor asgor rek lay doon koo teral rek mu yéene la jàmm ndax nit bu bëggut kenn dana bëgg boppam te teral nga njaboot ak sëriñ Tuubaa gi ba ñoom ñëpp mooy sëriñ sëriñ bi ak i bokkam ñoom ñëpp maase nañ sant la cant goo xam ne am na tàmbali waaye amul ab yemukaay li nga mën lépp nag def nga ko mooy luñ ne la jaadu na ci dëkk bi bëgg nañ ko nga def ko lu la xel may nga def ko loo njëkkati ni muy ñaari ne bëgg naa ci def ñaari ci ñaar wala ñett ci Sénégal muy infrastructure nga ne Touba laa koy njëkk a def loolu li nga li nga war lépp def nga ko li nga man lépp def nga ko kon nag ñoo ngi lay dalal di sant ci turu population dëkk bi yëpp waaye ci turu njaboot ak Serigne Touba gi yëpp Cheikh Basir dana fi ñëw léegi waaye ci turu mboolem jigéen ñi Sénégal Touba yi waaye ci turu mbooleem SONES bi ñu ngi la ciy sant di la gërëm di la li jëf ji rëy rëy nag nit amul lu dul kim yaakaar yow yaay père de la nation yow yow lañ yaakaar li ñu bëgg-bëgg ak ni dëkk bi di màggee mbooloo mi di bari Touba di dëkk boo xam ne mbubb moo ko dagar ren bu déwénee boo ko ko sololee mu rém mu manqué ko loolu dañu la koy leeral rek sa jëf ji nag rëy na ba taaga taxawaat di la wax leneen defe naa ne du neex deret waaye nag gannaaw dañ ñu fee teg di ñu liggéeyloo nga ñu nekkal la fi te yow loolu rek xam li xew rek mooy sa yitte ba nga faj ko ñu ngi lay xamal ne bëgg nañ ko jàppale suñu senes bi lool ndax dëkk bi dafa bari xale dëkk bi dafa bari yàlla dafa dogal muy dëkk bu rëy bu bari ay gone te liggéeyukaay bariw fi bariwul ay entreprise amul géej amul port commerce rek moo fi nekk ak dawal moo xam taxi moo xam sareet moo xam oto moo tax ñu de ñaan ay formation ak ay financement donte ñi ngi fi yebal ñi ngi góorgóorlu muy Fat Diané ñëw na fi mi ngi def lim man liggéey na fi liggéey bu rëy ren deer mi ngi fi mi ngi fi liggéey liggéey bu rëy waaye nag dëkk bi mbooloo mi ñoo bari xale yi ñoo bari te ñëpp toll nañ ci liggéey te fas yéene na yor seen waajur yi te yaakaaruñ ci kudul yow kon su taxawee fii di wax faw ma tuddu len faw ma tuddu jigen ñi ci ay financement ñu jappalé len ñaari problème rek la néwon dana la ko wax muy li nga xamné mom la dëkk bi soxla na def na ci nak def nga ci nak lu reey reey reey def nga ci lu reey def nga ci li nga man lepp waye nak ab docteur boko taxawé mom moom da koy wax sa jangoro do jekki ba docteur bi dem nga nan baron nako wax li lolu man sañuma parce que en tant que maire de la ville dana wax li nga xamne moy li fi xew muy president na muy affaireu assainissement bi def nga ci 27 milliards def nga ci 4 milliards léegi de tuddu nga léegi 23 milliards yuñ ci war def waye assainissement Touba kenn mënu ko assainir par parcelle il faut nga def étude générale xam li nga li nga ci war def loolu nak moy assainir cor assainir 30 bi bam daj nga assainir corniche bi bam daj nga assenir cent vingt mètres bi ba mu ñetti ndong ñetti ndomb yooyu ñoo war jumaa ji nga def quatre euh, quatre ñeenti sortie benn bi dem Tindoodi comme Daar Rahman benn bi dem Touba Fall benn bi dem wetu Touba Belal wala yoonu Daaru Musi loolu suñu ko defee danañu tàggoo ak indonation loolu dama ne woon danaa la ko leeral rek ndax nga xam li fi xew ndax yow lépp loo xam da nga ko da nga ko bàyyi xel li ci des nag mooy corniche boo xam ne foofu nga jàdde tali bi ci rond-point bi mu ñëw fii ci hôpital bi nga xam ne bu ñu amee évacuation wala bu ñuy bu màggal ñëwatee dana décharger tuuti dëkk bi ndax fi mu nekk nii circulation bi mi ngi commencé bari ñi ci kaw ñëpp xam nañ ko léegi dangay xool Touba da ngay jóge ci jumaa ji bala ngaa dem poste contrôle deux kilomètres la da nga fi def dix à quinze minutes. mi ngi commencé am circulation loolu nag dama la ko yëgal pour nga xam ko ndax lépp loo xam boko ak loo xamul te loo xam da ko def yiite wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.